ça par rapport par ak ak ce qui se passe est-ce que tey jàpp nga ne que kii di euh, Cheikh Abdou Bara Dolly honorable député euh, on a trop dit sur le président de la République. tout d'abord euh, je crois il faut que ma lever benn équivoque hmm. parce que article quatre-vingt boobu. Hmm. en fait ñu bari jànguñu ko article quatre-vingt bi parle des troubles c'est-à-dire de l'État. Hmm? au ci biir la nekk. je crois c'est article deux cent et quelques. mais article quatre vingt chaque fois les gens parlent de offense au chef de l'État mais c'est par rapport à la sûreté de l'État ay déclarations yoo xam ne qui peuvent occasionner des troubles politiques loolu mooy article quatre vingt. bon maintenant offense au chef de l'État vous savez la notion d'offense au chef de l'État man mos naa ci wax fii je crois ci benn dumelaan ça remonte depuis quasiment boo xoolee l'ère même du Christ jusqu'à y a beaucoup d'états yoo xamante ni génn nañ ko ñoom ci seeni seeni seen i seen corpus législatif parce que en réalité fortu tout la boo xamante ne nii à la moindre incartade les gens saisissent cet article là pour mën a régler des comptes politiques waxoon nañ fi ñu bëri nag sax ils avaient promis que ñoom une fois arrivé au pouvoir dinañ réviser le code pénal pour mën a dindi loolu mais boo ñëwee ba xas ba togg aussi da jàpp ne peut-être mooy la pour nga mën a abattre ses adversaires politiques Cheikh Abdou Bara Dolly le connaissant très bien c'est de très bien et je sais que li mu wax il l'a pas dit pour faire mal président de la République il y a une occasion publique qui s'est présentée mu wax ko nit ñi mën nañ ko jàppee ay dérives et cetera mais ce qui ce li Malick wax léegi dafa am solo c'est-à-dire que dans ce pays je crois que Cheikh Abdou Bara li mu wax ñu wax lu ko fi gën a graaw ci dëkk bi ñu ngi fi te nag gis nga dëkk boo ci nekkee il ne faut pas créer des précédents te fii nag dañu créer ay précédents te ki ñu dëkk créer précédent bi mooy d'abord le président la République du Sénégal yow nga taxaw nit ñi nga ne yaa ngi ay audit nga jàpp yoo la neex nga ne man maa jël sama loxo teg nii ci yenn dossiers yi parce que am na ñoo xam boo leen jàppee réew mi tàkk moo ko fi njëkk a wax kooku ñëpp ñoo ko wax ñoo ko dégg waa ki nga xam ne yaay la première institution du pays yow yaa taxaw nga ne da ngay làq ay nit alors que yaa njëkkoon def déclaration en nga ne une fois man du ma làq kenn et d'ailleurs sax man waxoon naa leen dans un pays normal un président parce que le président n'est même pas habilité que amul pouvoir bi si la justice marche bu dee justice bi mu ngi dox président mënul laax kenn mais ba mu taxawee ne dina laax du ma laax boobu laa ne kon kii dina laax ay nit la preuve moom moo taxaw ne dama jël sama loxo teg ku seen dossier yi alors que of nag am na fi ñu ma épinglé yoo xam ne ça justifie yenn yenn dérive yi waaw ah, moom laa la c'est-à-dire dama ne mhm. c'est-à-dire voilà des précédents parce que su fekkee ne injustice dafa am mhm. il faut nga réparer injustice boobu mais moo ne parce que tey injustice bi dafa la première institution du pays que bon le ministre là heureusement que Justin l'a dit il est, en train de dormir bon il va se faire encore un nom en disant que oui man maa wax maa joxe ndigal et waaw mais moo joxe ndigal mais il aurait pu aussi joxe ndigal ci ki nga xam ne moo saagoon waa famille Baye Niass yàggul dara Fouta Tampi fii la taxaw fii Fatoumata Ndiaye xaw ma Fouta Tampi saaga na fi la famille de bay Niass kenn waxu ko dara y shérif xaw ma ay dara bu génn fii saaga fi wolof yëpp kenn waxu ko dara kenn waxu ko dara dara dara kenn waxu ko dara idem pour d'autres personne fii ñaata nit ñoo fi génn fii di tooñ te pourtant kenn du leen wax dara Ahmed Suzanne Camara man duma sax attardé wu ci ay waxam il a fait un appel au meurtre et il l'a réitéré encore waxaat na ko wax na ko waxaat ko et pourtant bon le gens pensent que aussi c'est pas grave appel au meurtre moo gën a grave li ñuy wax président de la république man de jàpp naa ne fii ci fii émission bi su ma fi toogoon wax ne benn responsable APR nañ ko rey su ma génnee fii waa bi fii fi fekk leen ci buntu kër gi. <laughs> je ne parle même pas du président moo xoon benn responsable APR rek ne leen nañ ko def musiba rek su ma génnee waa bi fii lañ may këyiree. waaw mu noonu. waaw léegi nag comment veut-on vivre dans un pays où la justice est à géométrie variable et géo justice boobu nag tey dafa feeñ même dans les décisions politiques. Mm-hmm. dafay feeñ dans les décisions politiques. réew nag kenn du ko mais réew nag kenn du ko yore nii cest à bu fekkente ne dérive su amee fenn nga ne procureur autosaisirul waa mais bu nit aussi defee détournement ñu jàpp ko procureur aussi war na mën a saisir mais bu fekkee ne dañ dañuy euh, war a saisir nga ne procureur il faut faire la mort. Mhm. voilà ce que ça va entraîner. bu subaa nag quelqu'un comme Abdou Bara Dolly wax lu demee nii non wax ji ku nekk mën ko interpréter du la neex li ma ci metti mooy y' a actuellement presque un détournement même de procédure parce que mënoo wax ne da nga ko jàpp flagrant délit ñu tourné ñu ne maintenant on va en instruction parce que aussi les choses commencent à se clarifier parce que bu ñu dañuy dem instruction cela veut dire quoi ça veut dire que donc il faut le mettre au ñuuf pendant longtemps il ne va pas battre campagne et c'est lui la liste de Touba or xam nañ ne aujourd'hui mm-hmm. euh, dans dans la politique de ce pays léegi nag tey man je ne peux pas comprendre mënoon ne waa ji da ko jàpp flagrant délit ñu war def un jugement fekkee ko war a juger en flagrant délit léegi on parle maintenant de quoi on parle de de d' instruction ça veut dire que donc mën nañ ko bàyyi foofu ba heure bu neex comme on a fait aussi avec Cheikh Oumar Diagne c'est mhm. que réew mi ci boppam moom moo feebar et c' est la justice de ce pays qui est malade mhm. gis man policiers yi du ma leen wax dara xam ñu may dara ces magistrats qui ont été à la bonne école et qui aujourd'hui ne veulent pas prendre des décisions courageuses par rapport à ce qui se passe dans ce pays. bonne école mooy ENAM non centre de formation judiciaire. Ah oui non je veux dire globalement. on va ouais. venir parce qu'il y a des projets des programmes pour. Euh, ah ouais. centre de formation judiciaire. dans la nouvelle. kii ah. loolu mënu ma mënu ma comprendre. Ah. moo tax ma ne tey. politiciens yi man c'est les fonctionnaires qui sortent d'une man politique yi du ma wax dara parce que politicien bu nekk yow sa intérêt nga fi ngay lal. mais nag ñi nga xam ne ñooy arbitré mais mais sëñ Sadi moo moo moo war a changer je xam nga xam nga xam nga nee naa a il y a le régime de la séparation des pouvoirs. Mhm. le pouvoir arrête le pouvoir bu fekkente ne politiciens yi ñoom dañu am ay dérives xam nga ñoo leen di arrêté. Mhm. c'est la justice qui doit les arrêter. parce que tey justice suñ defoon ñoom seen liggéey li fi xew fii yëpp ci réew mi du fi xew mais su fekkente ne dafa ñoo xam bu ñu defee yow nga bàyyi leen. bu ñeneen defee nga jàpp leen loolu mooy indi lii tey moo tax ma ne man politiciens yi ñi nga xam ñoo yor réew mi ku ci nekk sa intérêt ngay lal mais bu fekkente ne yow da ngay def ay dérive am na pouvoir judiciaire boo xam ne nii mi ngi fi moom moo la war a stoppé te li may wax encore une fois gis nga magistrat yi le président de la république du seen kilifa xam nga kan mooy seen kilifa c'est la loi ils sont sous l'autorité de la loi ñoom loolu loi bi mooy seen kilifa c'est-à-dire donc ñoom amuñu ku ñu war a jaamu dans ce pays ku dul la malheureusement. Mhm. ils loolu nag moo waral tey dëkk bi nekk ci situation bi mhm. léegi nag justice mooy colonne vertébrale réew su demee ba nga xamante ne mënul taal finalement day damm te bu damee c' est tout toute la euh, comment dirais c' est la nation qui va en pâtir. d' accord c'est clair. Abou Diallo euh, wala laata may ñëw ci Abou Diallo euh, Omar Omar lu lu mënti wax tamit. Euh, président de la république nañ ko nangul lenn au moins euh, institution la naam justice dina tax tey ji peut-être euh, pousser certaines personnes ba ñu ba ñu révolté wu parce que soo nekkee doo au mur également da ngay révolté wu deux poids deux mesures baaxul fenn peut-être looloo tax nit ñi hmm. ñu leen di inciter à ce que ñuy ñuy tenir yenn yenn propos yi mais président de la république institution la bëgg rendre et forte mobilisation bi opposition def yeewu keroog. kon une grande mobilisation. Wade l'a fait en en ah, ngi nii sax. tu as vu ça en novembre 2014 bi Wade accédé Macky c'est deux ans après l'accession de Macky à la tête de ce pays. c'est deux ans après. 2014 qui avait organisé ça tu as vu. Mm-hmm. je pense que c' est en 2014 et en 2015 c' est par la suite la organiser beneen meeting ñu ne doo ko fi defee mu forcer barrage bi vous vous mu am sama benn xarit bu ma liiroon contribution léegi laay la laa si jëm muy Tafsir Coy mhm. d'ailleurs maa ngi koy nuyuwaale de passage mhm. mu defoon une contribution sur cette belle mobilisation xoolal fii ba centenaire la ba ci kaw a kaw fees del mu ne un meeting citoyen trois yi ñoo koy déterminer la responsabilité deux l'organisation oui trois la mobilisation la responsabilité l'organisation est la mobilisation Et tous ces deux ont été réussis par Yahweh. Mais le problème, c'est le problème de la responsabilité. Et qui a valu aujourd'hui la situation de Serigne Bara Dolly, le député. Mm Et la responsabilité voudrait boo regrouper autant de monde nga wax leen loo xamante ni ku ne bu ñibbee yóbbaale ko. Et c'est ça le problème de Yewwi. on donne la parole à tout le monde ku bëgg a bëgg a wax ku ne war a wax te am na ñoo xamante ni bu ñu waxee ñëpp jéppi leen ñëpp ne non non vraiment ñi li ñuy wax ni kenn waxu leen ko mais c'était ça le problème l'affaire de l'ArcelorMittal c'est avec Wade en mille 2014 avec cette belle mobilisation ñëpp yóbbaale ko ñu wax scandale ArcelorMittal ArcelorMittal l'affaire de Petrotim c'est avec Ablaye Wade donc dafa am des mobilisations yoo xamante ni ne boo ko defee avec autant de monde il y a une communication à mais du ay saaga du ay xasante mhm. du ay yuuxu wala du wax yeneen affaire parce que ñi nga la mhm. et c'est ce problème là que Yewwi doit régler encadrer prendre des responsabilités ku ne nangu ko aussi mu am ku nekk boo ñibbee ñu ne ah lii doon waxtaane waxtaane ko si dëkk parce que li nga xamante ni ne tey moom la Serigne Bara Dolly wax réew autant si moment ba ñu ay nguur gaaw Ablaye Wade di wax ñu leen di gaaw Macky Sall di wax ñu leen di fustiger autant c'est ça qu'il faut fustiger les propos de Serigne Bara Dolly lii du cërëm du waxam du jëfam waru ko def d'ailleurs ce jour la ba muy wax Khalifa Sall dafa dafa dafa def ni gémminam ay dëmboo fa mu toog ñoom ñi fa toog xam nañ ni kii la ma wax ëpp na xam nañ ko dañu waxante di am c'est des erreurs surtout nga am position boo am ci réew mi nañ bàyyi di wax di ut buzz sànq honorable député wax na ko j'ai besoin de 1 million de vues j'ai besoin de 2 millions de vues je dis ce que je veux je dis ça c'est anormal dans un pays ak fu mu mënti mhm. ça c'est des choses qui sont pas bien qu'on le veuille ou pas Macky Sall le